Euh, léegi ci ci ci way bi ah parce que comme ni ma ko waxee sànq en fait parole ni mu tegaloo wee nga ne ma ki mën a way ki way moo mën a way moo tax moom <laughs> eh, loolu nag du débat dégg nga ah, non mais am na masala mais en fait loolu du débat loolu mooy loolu mooy pari am na tubaab loolu loolu mooy ñii kër du débat du débat kii bi la rek wax kii la rek waaw d'accord d'accord mais mais mais mais Aïda ñenn ñi dañu ne Aïda talent am par rapport ak li ko yàlla may et puis nag jàng musique ah. Mm. Euh, dem nga def formation village des arts su ma juumee. école des arts école mm, mm, def nga def nga def nga musique euh, ñenn ñi ne Aïda carrière am waroon a gën a que nii nii. loolu ban ban réponse ngay am ci. réponse ma ci am mooy man mii sax. Mm-hmm. ñoom question bi ñu woo. Mm-hmm. man c'est la même question que je me pose man en personne. Mm-hmm. mais comme je dis rek tey musique bi fi mu la. les données on changé. les les les données ont beaucoup changé même donc raison pour laquelle xam nga dina day xaw a compliqué mais bon. Mm-hmm. ñu ngi si yoon bi. bu mm-hmm. waa bu ñu koy wax olof di waxee. Mm-hmm. bu lu jibu jeexul. waaw lu ji jeexul jugu fa. et ñu ngi si yoon bi di liggéey. Euh, ma ñenn ñi ñenn ñi ñu wax tamit en fait ni allier sa carrière solo ak ni ngay gunge sa papa Youssou Ndour am na tuuti lu mu. non je ne pense pas loolu mu nekk problème. loolu moom temps bi nga mën a concentrer aussi. non non parce que boo bëggee boo boo il faut que nit ñi comprendre que ne Youssou Ndour c'est juste laps de temps bu may dem jouer ak moom et que du tout tout tout et que du tout le temps laay laay laay laay laay jouer ak ak ak mhm. ñoom. Mhm. te donc te euh, période bi daf ma ko wàcceel. Mhm. Mm-hmm. dégg si bersi bi la ko wax. Mm-hmm. mu ne man léegi màgg naa. Mm-hmm. donc bu dee yenn événement yu mag yi mu am ko. maa dem liggéey si ak moom. Mm. mais Sube Étoile mënuma yaaxal dara parce que c' est deux choses différentes. lii Sube école la rek boo xam ne dama fay dem. jàngi li nga xamante ne mooy sama carrière mu nekk si maa ngi ci bay sama waar. dinañ gis saat euh, beneen Aida incha allah. Mhm, beneen Aida incha allah parce que dafa am fans yoo xamante ni voilà dañuy réclamer ni Aïssa euh, Aida war na di produire ci boîte di nuit par exemple ñuy gis sa frère Momo Dieng chaque mercredi dañ koy gis Vogue. day mhm. fees dafay dafa am na fa benn groupe am bu mu téye foofu. bu suudee dëgg la pourquoi pourquoi Aida mun produire jëm si si loolu. waaw waaw ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi ñu ngi si liggéey et que ñu ngi ci xalaat bu baax incha mhm. Momo. Mm, wax moom waa waykat moom way moom <laughs> maa ba ba bañ a wax moo bi mooy. waykat la daal waaw c'est le meilleur le meilleur de sa ah, man bokk. Mhm. Ah, il chante bien. da koy nuyu bu baax. ci génération moom moo la si gën a. moo la si daaneel ko wax dëgg yàlla. Mhm. bu dee mélodie rek ak way lu tegu ci yoon. Mhm. way nga déglu ko xam ne lii ay way la. lii ay mélodie yu jaar yoon la. man moom moom ma si man a daane. mais ba léegi defee goo leen diwoo dafa mel. incha allah dinaa defak ak ñëpp diwoo. ñu defal ñëpp diwoo mm. waykat yu jigéen yi yan ban kan kan nga ci gën a sentir feeling ko en fait. mbëf ñëpp. Mm. ñëpp waa ah. ñëpp mm. ñëpp parce que ñoom ñëpp mën a way. Mm-hmm. Viviane sama sœur la Titi Titi Titi elle chante trop bien kenn daax ko way. Mm-hmm. Adiouza aussi la même chose waaye ki ma ci daane dëggantaan. mooy Ami Collé Diagne. Mm-hmm. waaw mm. mais yaa Ami Collé da ngeen a da ngeen a da ngeen vocal waaw da ngeen bëri dañuy gisee euh, Ami Collé gis sa bopp d' ailleurs moom jot na gunge Youssou Ndour jot na ko. kër waaw moom mooy mu njëkk nekk super étoile après Ami Collé man laa fi dem. Mm-hmm. tamit carrière nu sutee nii par rapport ak attente bi nekkoon ci. des fois aussi tamit mbiru yàlla si la bokk. Mm-hmm. yàlla mooy tracé fii doomu aadama bi ni mu ko tracé. noonu lay demee. Mm. des fois mbiri mbiri jàpp moom mooy def loolu. ah, ah man moom moom laa mm. jàpp mais damay dégg sax souvent ñun Sénégalais xamuñu ku mën ku siiw lañu xam. loolu waaw yooyu tamit yooyu tamit ay contexte la non mooy moytu ma mm. sax mais ay contexte la yoo xamante ne dafay am. Mm-hmm. dafay am parce que tey xam nga des fois aussi doo bëgg wax. Mm-hmm. doo bëgg mm, wax. Mm-hmm. mais bon xam nga mooy limo wax tey Sénégal musique bi beneen fa jël beneen tournure. dafa jël beneen tournure boo xamante nii. xam nga du def lu dul yàq munul defar yàq rek lay def mm. donc ci ban sens thème yi ñoo nekkatu ci ci ci ci musique TikTok moo fi nekk léegi musique ci ci TikTok mënatuñ ko génne si ci ci euh, ci musique mhm. parce que tey dafa am doole de telle sorte que moom mooy def promotion wu mhm. loolu moom kenn waxatuñ ko mhm. mais ku nekk ak li nga li nga ci li nga opté man li ma opté mooy faire de la bonne musique mm-hmm. boo xamante ne ku ko déglu di nga ñëpp ci gis seen bopp mm-hmm. man loolu mooy sama objectif mm-hmm. et bu ko tey bu fekkoon ne sax di personnes yi koy déglu xam ne kat Aïda Samb bi li mu way qualité la man loolu rek man loolu dama ci am satisfaction. da nga ci am eh. satisfaction alors bi nga doon nekk sa sa kër di defar ay cere yooyu noonu di di wayantoog noonu euh, bon naturellement Youssou Ndour sa papa la mais est-ce que yaa ngi doon xaar. jour benn jour benn bés jot nga dem di ànd ak moom fu nekk ci àddina bi est que bi nga nekkee xale di pensé vraiment que di nga ànd rêve la woon dafa ne mosoon nekk loolu dafa mosoon bokk ci sama rêve mhm. nekk euh, aw kat Youssou Ndour loolu depuis ma xàmmee di way dafa nekkoon reef si man quoi. Mhm. reef la woon reef la bu suñ borom réalisé. Mhm. Euh. nga yoroon benn voix wu choriste au début dem ba si biir nga nekk yor benn voix wu lead vocal en fait parce que damay euh, sentir parfois spectacle yu si Ndour yi damay sentir sa micro dañ koy xaw a wàññi tuuti ko en fait c'est euh, ndax voix bi tonalité voix bi moo toll foo xamante mënatoo këru kenn wala nu mu demee noonu. waaw loolu loolu moom loolu man man man yoruma man man du ma choriste man je ne suis du ma choriste. Mhm. man voix lead laa amee. Youssou en personne. noonu ndax ma koy wax. man bu ñuy def kër man damay arrière ba ci ginnaaw. parce que man voix wu lit laa am aw ma voix wu choriste. loolu yëpp sant yàlla la daal. Mm-hmm. Mm. mais mais mais doon ko sentir ni man man dama ko sentir ah su ma seetaanee spectacle damay sentir Aïda dañuy wàññi micro son dañuy wàññi micro tonalité voix bi macha allah fi muy toll. man luñ ko wàññi wàññi wàññi buñ nekkee kat sama baat rek ngay dégg. macha donc loolu. Mm-hmm. sama sama sama sama timbre vocal moo mel noonu sama mm. tonalité baat moo am do moo moo mel noonu. moo mel noonu parce que yoruma voix wu. Mm-hmm. aw kat voix lit laa yore. Mm-hmm. man man man lit laa. Mm-hmm. du ma Mhm. mais ni nga ni doon woowee par exemple ay musique traditionnelle di ci fo moderne bi parfois nga ñu indi ay ay ay ay yoo xamante ni wala ay ay beat laa mën a waxee son yu ñu produit yoo xam ne dafa am yeneen tonalité yu différente ndax doo am ay jafe ci univers bi ñëw ci. mooy li ma la sànq rek damay ñëwaat. Mhm. Mhm. <laughs> moo mun a way. loo ko tegal mu way. waykat bi moo mun loo ko tegal mu way loolu la rek. donc lan ñu mën a xaar waxuma ko nag pour. non mais mais parce que xam nga boo nekkee waykat. pardon nga possibilité. woy ci lii. woy ci lii woy ci lii woy lii. donc loolu chance la bu la ko yàlla la ko yàlla jaglelee. Mm-hmm. Ah, waaw loolu loolu chance la mais après après temps booy lan moo si si topp. album incha allah. Mm-hmm. album moo si topp. incha allah album bi allah euh, ci décembre bi la waroon génn. Mm-hmm. mais dafa décembre dafa xaw a. xat xat trop. ñu mm-hmm. pousse que on peut ba au mois de mois de janvier mm-hmm. incha allah. mais enregistrement yi pare na quoi. lépp pare na ñaata morceau. huit mën na ko ëpp ça dépend. Mm-hmm. lépp euh, mbalax la wala am lépp a ci biir album boo seetloo bi ma jugee si bi ma defee baado la. beneen benn euh, kilo ñu ñu boo seetloo morceau yi ma fi génne yëpp baado la la jëkkër sama. Mm, looy xof ba ci temps booy mhm. boo seetloo kaat yooyu yëpp mhm. benn bokkut ak sa morom registre benn bokkut ak sa morom tonalité mhm. donc noonu lañ ko mélangé ci biir album